yaa ñu waxoon nguur kenn du ko joxu majorité sàmm sa kàddu yaa ñu waxoon état foo ñu koy saytu mbir yi leer sàmm sa kàddu yaa ñu koy saytu mbir yi leer sàmm takk wàllu Sénégal sàmm sa askan bi wuyu leen ñi solution baa ngi ni ndax ñi dañoo tël ne jeunesse baa ngi gàddaay jël géej gi ñaata jeune ñoo ci dee chômage bi gën a bari dund gi gën a xam nga ni lii metti na wuy wàllu ana ku ñuy wàllu intercoalition ma ñuy wàllu yaaya wuy wàllu ana ku ñuy wàllu sàmm sa kàddu bi lay ma ñuy wàllu yaaya ko voté sauvé nga réew mi nañu dem voté sauvé suñu réew mi na nga dem voté ngir sauvé suñu réew mi Ablaye dina voté sauvé suñu réew mi yaa ñu waxoon nguur kenn du ko joxul majorité sàmm sa kàddu yaa ñu waxoon état foo ñu koy saytu mbir yi leer sàmm sa kàddu yaa ñu waxoon opposition la ñuy jox majorité sa kàddu yaa ñu waxoon état ñu koy saytu ngi jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ba Dakar ñëw seet si ñu fii dans la terre du bambou. ñu ngi leen di dalal di leen ñaanal ñëw bi ñu ñëw ñu delluwaat ci jàmm message bi may njëkk lancé département de Koungheul jàmm ak salaam ak liggéey lañ ñu xamee ñu ngi leen di ñaan yéen jeunes yi yéen ndaw ñi yéen mag ñi ngeen continuer ci lancer boobu élection jeu démocratique la lu am solo la mais li ëpp solo mooy élégance bi ku ci nekk bu waxtu bi jotee nañu dem uti mais na utin bi rafet loolu mooy lan ku ci nekk am nga programme boo demee diisool ak askan bi ak foo mun di wax leen lii sa programme population bi su fekkee li leen wax doy na la ñu jox leen seen kaddu ndax fii coow li bëri na lool waaye kii falu xam nañ ko yàlla xam na ko parce que noppi na donc jarul xeex jarul xuloo beneen bi may wax mooy ñun dañu am cohérence ci li ñuy def ñun dañu bokkoon yeewi askan bi bi ñu fay bokk li ñu waxoon mooy élection législative député ñëpp xam nañ ne moom mooy contrôler l'action du gouvernement dañu waxoon ne député yi bu ñu bëggee action du gouvernement ñu continuer ko di ko contrôler mu tegu ci yoon nañu jox la majorité député yi yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi parce que tamit am naa njort bu rafet ne te wóor na ma ne ñi nga xam ne ñooy les députés de l'opposition mooy ñi nga xam ne ils sont des gens très bu ko defee ñooñu li am solo mooy bu ñu demee assemblée nationale bu ñu leen jébbalee këyit te mu gën ci askan bi li maam Abdou waxoon këyit boobu dañu koy voté maa ngi dégg ay nit di wax ne di tuumal Barth naan moo wax ne dafay bloquer assemblée nationale loolu du yéeneem waaye nag am na loo xam ne aussi duñu ko bàyyi mu jàll képp koo xam ne da ngay proposer loo xam ne baaxul ci askan bi dañu koy bloquer léegi nag li ma bëgg képp koo xam ne yàlla dogal na suba ñu tabb la ak côté boo mun di ne bàyyil ne intérêt département de Koungheul moo ëpp solo loo gis donc ñu jiital loolu message bi du gudd lool mais li ma bëggoon ngeen xam mooy honneur bi nga xam ne defal nañ ko le maire Barthélémy Dias à Dakar ba nga xam ne intercoalition bi ñoom ñoo boole seen doole ñu ne sàmm sa kàddu la ñuy voté ñun ñu jàpp ne dans le département ñoo fi nekk te bu ñu waxantee dëgg xam nañ ne pacc pàcc yi baaxul ci opposition bi moo tax ñun en personne consciente tey mënoon naa wax ne ndaw laa damay dem xeexi comme ñëpp wuti waaye pour set fois-ci dina may honneur ni nga xam ne mooy honorable député Fanta Sall ak Madiama Seck amoon solo mooy opposition bi am majorité à l'Assemblée nationale donc ngeen bàyyi xel ne élection bi euh, euh, campagne bi commencé na tey la juróom-ñeenti fan dañuy ñaan yàlla ñu mottali ko ci jàmm fépp fu ngeen xam ne am ngeen fa yaakaar dem leen fa nañu fa ànd ñu dem bu ñu demee waxtaan ak nit ñu suñu kàddu bu leen doyee ñoom bu bés ba ñu jox ñu seen baat te jàpp naa ne contrat législature bi nga xam ne sàmm sa kàddu proposé na ko c' est le même contrat de boo xam ne bu amee changement ak bu takku wala différence bi bëriwul donc nañu sukkandiku ci loolu te contrat boobu ñu ngi ñaan yàlla bu ngeen demee assemblée fexe leen ba ngeen respecté ko loolu lañ leen di ñaan aujourd'hui le maire Barthélémy Diaz loo ko bañ bañ bañ xamal ne waxkatu dëgg la loo ko bañ bañ bañ loo bañ bañ bañ xamal ne ku am fulla la ak fayda la yalla dafa dogal nag léegi wax dëgg ci dëkk bi dafa boo ko defee ñu nan ku bon la ku soof la ku nangam waaye su fekkee dañuy bon de te wax dëgg ñuy wax dëgg ba lu ñu yàlla may ñu jël. beneen bi pour bañ a guddal kaddu yi jàpp leen ne la coalition sàmm sa kaddu dans le département de Koungheul diisoo nañu ak tout ce qui est responsable dans les communes ak les autres partis yu bokk ci coalition sàmm sa kaddu yéene bi mooy. élection du 17 le 17 le soir incha ñi nga xam ne parti yi mooy le parti pur ñooñu xam ngeen leen ci seen fidélité. au passage ñu ngi ci nuyu di ziare bu baax suñu sëriñ suñu maam sëñ Moustapha ak ñi nga xam ne ñoo ko nekkal fii. ñu ngi nuyu waa Anta Babacar Ngom ak ñu ngi nuyu waa Pape Djibril Fall. ñu ngi nuyu waa euh, Déthié Fall parce que ñoom ñëpp seen représentant ñu ngi fi ñu ngi nuyu waa Bougane Gueye Dany donc bu ñu limee dañuy juum au soir du inchallah la coalition takku wàllu moom ñuy voter mooy bulletin bi ñuy wone asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nayu di dalal sunu gan ñi jóge ba Dakar Barthélémy Dias Anta Babacar Khalifa Sall suñu tuddee ñooñu tudd ñëpp di sant rek ay remerciement la ñuy def tey ci waa coalition sàmm sa kàddu ñoo nañ comprendre nañ situation Sénégal bi ba fii depuis ñaari fan yi ngi waxtaan ñu ne dañuy def intercoalition sàmm sa kàddu ak takku wàllu yàlla sottal kon ñu sant leen ci taxawaay boobu ak lu rafet lu ñu def di leen ñaanal ni ñu ñëwee yàlla nañ ko delloo ci jàmm ak salaam ba campagne bi jeex deret bu mu tuuru bakkan bu mu wàññeeku waaye nag yal na yàlla may ndam li si opposition yi ci Sénégal tout ba ñu jot na suñu assemblée nationale ndax li ngeen def nii ba rëy na torop ci ñun kawe na suñu njortoo ndax man mii di wax tedd li si la comme waagan mii di sama rak bu ni mu demal boppam kon lim ñu defal li wolof di wax ku la lebal kër nga jéem ko fay guddi ñit ñoo leen desal waaye li nga waxit waagan dégg nañ ko la ngeen ci sàmm sa kàddu boo demee ba ci takku wàllu rek moo fa nekk daañ jëm matal ko fii nag li xale wax ñëpp bat yéen a ko gisal seen bopp histoire bi fii la woon fii la ñu nekkoon ci sunu permanence ñoom ñu jaar fi sunu mbooloo taxaw ñu ne duñ leen gis ñëw sànni ñu ay lacrymogène ngëb ay jaasi di cant mais duñu fay duñu mer le 17 lañ koy faj ci ñoom dóor ba gañe leen dans la département de Koungheul xam nañ loolu parce que wax na ko ci waxi nee na bu ngeen ñett yoon ñàkk ngeen kon sant nañ leen gërëm nañ leen ñu jéem waxtaan yeewi leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Bambou ñoo ngi leen di leen masawu ci naaj bu tàng ci metti bi mais seen ko jaral ñu ngi nuyu waa sàmm sa kàddu te di ci jiital seen tête de liste Barthélémy Dias di nuyu président Khalifa Sall di nuyu Pape Djibril Fall ñoo ngi nuyu suñu sëriñ sëriñ Moustapha di nuyu master Anta Babacar ñoo ngi nuyu coalition bi ñëpp yaa mbégte bu baax ne histoire da koy bind parce waa sàmm sa gàddu fii ngeen dajee ba ci démb fii la premier ministre ñëwoon seen cortège moo ëpp cortège premier ministre te reyu leen dooru ne yóbbu woo leen kenn kon population bi yeewu waa Koungheul yeewu xam ne waa Koungheul yeewu nañ moo tax yi ñu koy def mais ñun duñu kii duñu ragal parce que la ñu àndal ñuy gërëm seen nit yi ngeen fi am leen jaral loolu dañuy boole seen doole boo boole nag na seen xel dal loolu moo woon sax yëkkati fii ay baat. wante dama dégg léegi suma jigéen honorable député Fanta Sall mu ne premier ministre yéen askanu senegal na ngeen ko déggee nii amuleen premier ministre yéen yéen lu tubaab di woye petit mec xam ngeen luy petit mec yéen moom ngeen yor xam ngeen na ngeen am na ku fi jaar waajooju moom laay woyee mimi moom xam na lu tax ma koy woyee mimi mën a fen ak mën a manipuler xamul tus te tële moo tax ma koy woyee Mimi bu muy jaar fii am na lu fi xew mu ne def fii jëlee commissaire central ak commissaire bu fi nekk du noonu laaj leen ko dakaar bu mu déggee ay commissaire centralu Dakar ak commissaire bu jëpp lu tax jëlewu leen fa loolu mooy kumba am ndey kumba amul ndey loolu du lu tax ngeen woote woon fii alternance dernière élection présidentielle dama bëgg ngeen dégg bu baax lu mu leen di wax kilifa day wax dëgg kilifa du fen kilifa day sàmm kàddoom kilifa du fen yenn jullit xam ngeen fu may waxee katolik yi xam ngeen fu may waxee xam ngeen lu alxuraan wax ci fenn dama ne su ngeen nangoo ci biir dëkk bi fii ay njit di dëkk di fen ëllëg dëkk bi su demee ba jaxasoo bu leen mere kenn dama ne le 17 novembre na ngeen voté ndax fulla fayda mooy ñu fi taxawoon fii am lu ñu leen diggoon te gisu leen ci seen bopp na ngeen ko fajal seen bopp. moom ci boppam moo dem Dakar Arena jël micro ne lépp lu mu doon wax lépp lu mu doon def ay fen la woon ay tàppale la woon moo ko fi wax dama ne. ba 83 sénégalais ñàkk ci seen bakkan ku mu neex nag di fooye xelam man boroom xel yi laay waxal nu ko yàlla waxee rek te wax nañ ko ci alxuraan borom xel yi laay waxal man waxuma ak mala yi ñu fi bëgg a toog fii di wax ay wax ngeen xam ne ni dëppawul dara dëppawul ak dëkk amul fulla amul fayda ñuy fooye seen bopp yi ñun duñu ñu fooye Sénégal du ñu fooye ëllëgu Sénégal dama ne moo tax ñu woote fii intercoalition Sénégal moo tax ñu nangu doxante loxo jële lu fi nekk le 17 novembre su ngeen bëggee am président de la république na ngeen woteel suñu intercoalition parce que seen président bi muy président Diomaye Diakhar Faye toogagul ah dafa catu rek toogagul ba léegi ndax lan ndax waa ji mooy ku may woy mimi mimi boobu nag baaxul ci kër baaxul ci àll baaxul ci mbalit démb sax ci dëkkam ay ñitam sax nee nañ ko dañu sonn tay ci sa ay fen ñëpp a sonn ci ay fenam yéen nag waa Koungheul na ngeen ànd ak fulla ak fayda le 17 novembre man wax ci duma ko raaya fu ma gis fenkat ma leen fen fenkat a ngi nii dafa fen a fen ba fenal boppam lenn rek lay ñaan yàlla bu mu fen a fen a ba fenal ma parce que bu muy dem suite ba tey ànduma ak moom kon nag ma tax ma ne leen mbokk yi le 17 novembre dëgg naa fi ay nit ñu ne ma na wax ci waxu programme dama ne campagne bi des na dinañ ci wax ci waxu programme wante dinañ wax lan mooy góomu Sénégal góomu Sénégal mooy fenkat bu may wooye Mimi nekk ci dëkk bi di fen di fen di fen amul amul amul kóllëre amul rusukaay balaa may dee muy dafa gis benn compte mille milliards ak a mën a fen ak a fen day fen fen fen ba xamatul lu muy fen moo tax dama ne le 17 novembre man waxuma ay waxu programme suñ ci eggee dinaa wax ay waxu programme dama ne le 17 novembre fenkat bu nekk ci dëkk bi nañ ko fi jëlee nañ ko fi jëlee parce que ab fen ñu muy fen du âge am du génération moo tax le 17 novembre nañ joxante loxo da jëlee ko fi wax ci nag bu leen ko raay ku gis sàcc ne sàcc a ngoog ku gis fenkat ne fenkat a ngoog te fen moom nañ ci yàlla musal kon nag mbokk yi Fanta ngi nii Madiambal ngi nii le di novembre yaa xam koo àndal su nekkee Sénégal la ñor ak ëllëg ku Sénégal na ngeen votel intercoalition xob bu baax bi mu ngoog ñu ngi leen di gërëm leen di sante mbokk yi jërë jëf